en fait euh, déjà maa ngi remercier eh, si niveau bi nga xam ne commencé nañu ko débat bi parce que c'est important oui. Euh, di saluer aussi euh, la décision du président de la République par rapport à ce que li nga xam ni wax na ko si du présenté wu si élection bii di ñëw c'est pas parce que dañ koy dañ koy saluer parce que kontaan mais dañ koy saluer par auteur bi mu am dañ koy saluer par li nga xam ne dañ ciy jàng respect constitution bi par rapport euh, li nga xam ne moo nekk article 27 si si biir discours bi moom xam ne constitution bi may na ko mais je pense que le plus important c'est la décision et les effets politiques yi accompagnent si décision boobu noonu que c'était une alerte je pense que c'est des prémices yoo xam ni euh, si Ablaye Wade gisoon nañ ko ak décès yi amoon forcing boo xam ne xëy na suñ ko su ko suñ jàppoon ni posé na candidature am dañuy jàpp ni forcing la parce que eu égard à que moom lu mu bind lu mu wax lu mu enregistré ak ñooñom yu bëri wax ko ci nekkoon mm-hmm. donc je pense que loolu bu amee ñu bëri saluer nañ ko donc dañ koy saluer à ce niveau par rapport ak euh, li nga xam ne jàpp nañu ndax décision bi daf leen bett la ñu resté bon bett nañu duñ ne bett nañu duñ ne bett ñu parce que on attendait simplement quelle serait sa décision donc à tous les niveaux pare woon nañ que mu nekkoon candidat xam nañ exactement quel serait le combat politique bu ñu mënee que mu ñàkk nekk candidat xam nañ ni carrément que aussi tamit dañ koy saluer mais sauf que xam nga parfois. Mm-hmm. Euh, une élection présidentielle c'est des c'est des c'est dans un parti politique il y d'abord li nga xam ne jàpp nañ ni mooy la constitution phare. bi nga xam ne à tous les niveaux que mu nekk président de la république que mu nekk le régime au pouvoir que mu nekk l' bi que mu mhm. nekk tous les sénégalais constitution moo ñu fi bàyyi mhm. donc constitution boobu la doon veiller à ce que ñu respecte ko le débat c' était pas sur la personne de Macky Sall su nekkoon le président de la république s' appelle Adama wala mu tudd euh, Malick mu tudd keneen le débat serait le même parce que dañu jàpp ni c' est des donc c'est pas la personne de Macky Sall euh, euh, ñu nommé ko tur ak sant moo importe mais lu ñu doon wax mooy derrière cette personne derrière cette personnalité derrière l'institution qu'il incarne lan moo waroon a nekk ci yoon donc si su ñu ko passé